والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi compagnie C3S dellu siwaat ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bii nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg a bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique C3S bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt ren coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg bokk ci joŋante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg a bokk ci joŋante yi te bokk ci régions yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ibra Sogi wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Diama nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 alxuraan ay nga neel ku ci am ak na meel yàlla dal koy goreel anta bi na kàddu yu ma waxal Euh, yooyu rek laay waxaat tàmbalil ko Cheikh Bass mu àggaleel ma euh, loolu moo di euh, yoonam wii moo ko moom cant ak ngërëm rek la fekk ak ñaanal ko ak gën a yeesal sama dénkaane moom dénk gi ma ko dénk sëriñ bi maa ngi koy gën a yeesal sëriñ bi laa am tey moom laa moom la soxlaa ëllëg moom la soxla am ci biir moom la soxla am ci bitti soxla wu ma dara loolu am sëñ Tuubaa du ma dara itam sëñ rek la kon ma kàddu yooyu eh, moom laa koy moom laay ubbeel Cheikh xam ne eh, ñëw gii lii moom moo ko moom bëggu ko kenn cant ak ngërëm dong la fa fekk ndax tax taxawaay bi lam man ak lam mënul lépp def na ko ci ci ci defal ko sëñ Tuubaa te seq fekk kenn dara ku dul sequ fekk kenn dara ku du sëñ Tuubaa kon li muy def ginnaaw sëñ Tuubaa la ko defal la koy la koy liggéeyal kooku jaamu yàlla gu rëy la ndax sëñ Tuubaa soxlawul dara loolu borom lu koy defal yàlla nga ko defal kon noonu rek la demee kon nag sax bas àggal leen ma la ci des waaw foofu foofu foofu foofu la di jéggalu loolu kàddu yi rek ndax ndigal ndax bu ma sëriñ bi yónnee faaw ma jottali li ma wax waaye daanaka sëriñ bi tënkal na boppam lim mu bëggoon a wax lépp kon ñi ngi tàmbalee nuyoo bi ci président Macky Sall ci turu sëriñ bi ak mboolem délégation bi mu àndal bépp di ko dalal jàmm ci dëkk bi ci waajtaay bis bu tedd bii nga xam ne bisu Serigne Touba ni ma ko daa waxe waxtu ne mooy bis bi mu laxa di mu liggéeyal boromam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jànkoonteeg ay metti metti yu ëpp ba yàlla suñ borom at mu jot natt yu mu ko teg bu waxtu wa dellusiwaatee moo tegaat ko yu ko ëpp noonu la doon doxe ba ci at yu mujj ci njaareem 1919 wala 1920 sëriñ bi xëy woote doon sintu natt wi yàlla suñu borom xamal ko ne ko jeex na ak pay ci des li àddunaa ngi dox saa su bi si accès xéewal gu mal ma dama koy dolliwaat te buñ demee ba ëllëg itam foofu ay bis amu fa waaye bu koo xam ne sama bis yi daana la itteel nga di ci taxaw buñ ci àggee lépp loo xam ne ay xéewal yoo daa am bis baa de dolli ko waat kon bis bii bis la boo xam ne mooy suñu lépp mooy bisu Serigne Touba di bisu yoon wi kon Serigne bi nee na président mi ngi lay nuyu bu baax xam naa wax ji du gudd ndax li mu wax nee na li ma waxoon ci làmmiñam wax na wax na ma ko démb waxaat na ma ko léegi nee na mi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nee na ni mu la waxee bis bii nga xam ne bis la boo xam ne. ëmbal lu ci dara lu may sant la ak ngërëm la ak ñaanal la ak yee salaat lay dénk gim la dénkoon Sëriñ Tuubaa loolu nag doon na sëkk ndax sëriñ bi kat ku ko xam xam ne jëmm la joo xam ne nii ko kilifa gi waxe njiitu réew mi léegi ne mën naa ne néew na yor dugg ba jeex te sëriñ bi yónneewu ma ci ay itte waaye lenn lu ci ma sa doon soxla ba fa amatu wala ak njabootam kon moom adduna sépp la teewal. lislaam jëpp la nekkal waaye njabootu Sëriñ Tuubaa jëpp la nekkal kon nag nee na ngi lay sant di la gërëm ci mboolem taxawaay ak coono yooyu nga xam ne yaa ngi koy def di ko def ngir jëmbi Sëriñ Tuubaa waaye di koy def ngeen xam cofeet gi mu la ëmbal àgg na ci boo ma ne waxuma la yërmaan waaye dama ko ñewantal daanaka bu lay wax soxla yi nit ñi sax day diis moom ndax nee na bu soñoon day àndeeg ci yoon loo xam ne du du du teg dara lu su bàyyi la nga ne ci liggéey waaye nag nee xam na ne kuy liggéey Serigne Touba Serigne Touba am na pay kon nag nee na ngi lay sant bu baax ci coono yi nga xam ne waxtu ne ni ko waxee jiitu na jataayam bii ngay am ci yaakaar akuk cofeel akuk jàpp bi mu fi nekkee Serigne Touba ba nagën itam saa suy soxla si nit ñi accès ak lu jafe-jafe-jafe dañ ca teg sa bakkan fexe ba na ko Serigne bëggee mu amee ko ni nag nee xam na ne. ànd nga ak moom liggéey bi kon mi ngi lay ñaanal la Serigne Touba daali woon ne daa waxoon ne anna man waasala nii laa li xarajin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasala li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne dangaa ñëw ci man te yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom daan la boole ci ña gën a jege képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla danaa teel a sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel tarafa njort te xam ne li nga jëfal sëñ ci dëkk bi liggéey sëñ ba di ko rëcc kenn mosu ko def kon na sam xel daal ci li sa kanam ndax nee li nga jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax trente bi nga xam ne doonoon na mébétum dëkk bi nga taxaw ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggal gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeenti forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggat gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi ñu defoon daaw ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali nag mbirum nag bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam dalaa wax na la yëpp ay soxla waaye bii moo di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ji mu agsi ci waaye fa sansa lu matu juróom benn weer koo xam état ni muy doxee xam ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk nga ci def ba loolu mën a am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne ittee ma wala ittee njaboot gi wala mboolem ci dëkki yoon yi dëkki Serigne Touba foo ci déggee taxaw ca ba def ca ndakaw jotam neen loolu mi ngi lay sant di la ci gërëm di la bàyyeeg Serigne Touba mi nga xam ne ni mu la ko waxee léegi xam na li nga jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko dëkk bi jëf leen diwu fee kenn ku du Serigne Touba kon nag lépp lu mu daa jëfal Serigne Touba ak yoon wi na ko jëmee kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee na doo ci am dara lu may am ak ndam ak payug Serigne Touba naan na mi ngi lay sant la ñaan ci li ci sa kanam yaa ko xam yaa xam sa bëgg yàlla na la ci yàlla dimbale defal la ci tawfeex nga amee ko kaw suñu jotu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. والقلم وما يسطرون bokki jullit yi compagnie C3S dellu ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique c 3 bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg bokk ci jongante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala extrait ñi bëgg a bokk ci jongante yi te bokk ci région yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ourossogui wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Dia ma nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 23 21 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 alxuraan ay nga neel ku am ak na meel yàlla dal koy goreel bi ni'mati rabbika bi majnun